ñun buñ bokkee ci kuréel gi ba pare bokk ci politique bi suñu kilifa bu ànd ñun on a trouvé normal et judicieux que ñu ñëw ànd ak moom fii pour waa kuréel gi xam ko. dëgg la ndax ñu bari dañuy dégg Amadou Ba té xamuñ ko. la ñaareel ba moy dafa taxaw ak sëñ Mountakha xam c'est pas pour rien que bu ñëwee mu toog ci dina xar mi ko jox tabaski man mi la ko Cheikh Ibra jox ne ma dama yobbu ko ci kanam Babacar mbay mu ne lu muy defal doomam yi mu jur mom lay defal Amadou. ñun nag Parcelles Assainies suñu xel dal na sincèrement. Euh, ñun on fait une campagne très transparente amul fuñuy ñuy dugg tëju fa duñ leen ci bolé pour war leen ni que ñun lañuy wax ak lañuy dox nëbbuñu ko euh, gis ngeen fi ñu dem yëpp gis ngeen ni ñu demee ci église bi euh, moi j'étais très touché wa j'étais très touché par accueil bi ma am ci ci église bi de voir un peu cette mobilisation exceptionnelle de toutes ces personnes yoo xam dañuy ñëw di wax jërëjëf jërëjëf li fi président def mais jërëjëf aussi li ñu leen defal parce que ñun dañoo dëkk ak donc euh, li jiitu ci ñoom ci ñun la war a et c'est comme ça que doit euh, vivre un responsable ak say say say say militants ak say dëkkandoo Bo amee loo leen euh, tane nga dimbali leen du toujours rek comme les gens le pensent non même même conseil romb nit ki nuyu ko tok ak mom waxtan ak mom romb nit ki dég mu dég ko mu wax ak yow ne la sama que ni sama njaboot ni sama doom ni et cetera loolu c'est des choses yoo xam ne day yokk diggante nit ñi loolu faut bi ñu demee gis nañ ko bi ñu aussi ci mosquée julli mosquée unité 13 bi aussi on était touché parce que mosquée bi bi ñu koy tàmbali ñu ngi woon fii képp kuy kilifa diine ci biir Parcelles Assainies ni nañ la ñun aussi dañoo gëm lolo. société dafa am nu muy doxee ñun ñun nangu kilifteef te ñooñu mënoo def dara fii te ànd ak ñoom wax ak ñoom mais li ëpp solo mooy boo fa demee waa quartier bi dañuy génn topp si topp la bi ñuy ñëw fii léegi maire Ndeye jaw man bi ma koy xam ak léegi ëpp na 30 kenn mënul def dara HLM Grand Médine mbaa nga wax dara HLM Grand Médine te ñëw ci moom képp ku fi yeewoo unité 19 xam na la képp ku fi dëkk si xam na la boobu ba tey mi ngi jàppale président boobu ba tey mi ngi ñun tey jii mu ñëw ñu mu dégg ñu fii ñu ñëwoon di seet si benn kuréel. mu dajale jigéen ñëpp ñoom ñëpp ñu ñëw eh, waxtaan ak ñun di ñu ndokkeel di ñu wax foog ñu def fii visite foog ñu ñëw def leneen loolu mënuñu lu am yaakaar et c'est la même chose que nous avons avec les jeunes.